waa association COSAM di nuyu waa mouvement jigéen jóg taxaw di nuyu toutes les sages-femmes d'État du Sénégal di nuyu waa ministère santé yëpp di nuyu àddina bi yëpp di nuyu jigéen ñi dóor waar yëpp di leen wax jaajëf di wax ñëpp asalaamu aleykum merci beaucoup muy sage-femme d'État di principale euh, classe exceptionnelle ah hein. ancienne coordonnatrice nationale santé de la reproduction foofu noonu ca jëwriñ bi yor wàllu wér yaram ko dalal di Fatima Bokoum la ravissante remplacé nga ma mais namoon naa la tamit naga ah. waaw bu ko dégg naa da nga bëggoon jël sama place Cheikh Mansour ngeen xaaj ko ci digg bi Abdoulaye moo bañ ay Abdoulaye ñoo ko doon bañ ak ay ñoom ay ñoom ay créé syndicat bi ne ko loolu moom du jàll moom <laughs> bu ñëwee naa ay Abdoulaye di mos ma ne ko loolu du de dio moom du jàll <laughs> bëgg créé dio stage stage bi defe jàll na ci jàmm ak salaam. en tout cas c' est un plaisir Léna ñu retrouver voilà euh, ñu retrouver la encore. Mmh. Euh, ñu bëri dañ la doon laajte à chaque fois naan ana Léna ana Léna ma leen di dalal. nee nañ Léna ma ne laaj nañ ma ko ba sonn sama koñ ma génn ci boutique kooku ne ma waa Léna anamu. moom ma ne ko yow laajte woo ma ngay laajte Léna. Mmh. <laughs> voilà en tout cas c' est un plaisir Léna ñu ñëwaat rek comme niñ daan niñ ko daan defee. Mmh. Euh, bébé et maman moom tamit dafa demoon cause waaye ñëwaat. ñëwaat na euh, indiwaat sujet yi loo xamante ne dafa laal xale moo xam jigéen la ba ci sax biir kër yi yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee tey ñu indeeti rek tey aussi lu am solo jëmale ko ci accouchement looloo waral ma dalal fi ki nga xamante ne moom mooy euh, Adja Adjuma Ndiaye

lépp luy ruuse ci information yi rek mañ ko xamal ci noonu la ñuy xuusi dugg ci actualité dina ñëwaat sur ce plateau wàllum actualité du net mooy lépp li nga xamante ne ñu ngi koy daal di wax rek ci mbirum Idrissa Gana Gueye je suis na bu nekk ak fu muy jógee waaye ñu ngi sukkandiku ci bi nga xamante ne ñu ngi ko seen Seneweb bu Adama Ndiaye muy touche pas waaye laata boobu ki nga xamante ne mooy Ababacar Tunkara te teewal ñu foofu tamit ca Maroc moom it am na li nga xamante ne wax na ci jëm ci lépp li nga xamante ne moom mooy le cas Gana Gueye Abdoulaye Ndiaye waaw noonu la demee gis nga ko nekk ni mën nañu jàpp ne moo gën a fës ci toile bi mm-hmm. euh, soxol Euh, affaire euh, gan Gueye ci PSG ak coolole ci cool ak li nga xam ne soxal borom ñaari tour yi kon slogan yi ñu ngi euh, law di walum nak ay tour ñu ñuy ci ay bàkk nouvelle devise nationale buñ ñu ko ci Adama Ndiaye moy donc ne touche pas à mon lion bu laal sama gaynde gi donc mu nek ñu bari ño xamante tay ji soxal na leen ngir ñu addu ci mbir mi waaye ni ko waxe sank tamit ginaaw Sénégalais yi nga xam ne ñoo ko tamit ñu ci bari def ci ay sorti def ci ay ay euh, pot euh, ay li nga xam moom moo di ay message yu ñu euh, fësal bokk na ci également suñu naataango boo xamante ni mi ngi fële ca Maroc di kii di Ababacar Tunkara également am na ci benn élément boo xamante ni jël na ko cee defal xanaa rek ñu dem déglu ko ci li nga xam moom moo di voix boobu mu ñu ci jàllale par rapport ak la situation bu gànn gi ci mbirum borom ñaari tur yooyu bu fekkee avec la complicité de la régie pare na dañuy rek dem teewlu ko bokk na ci li nga xam moom moo soxal euh, lu jëm ci euh, mbirim LGBT yooyu nga xam te fi mu nekk nii euh, moo fës ci toile yi daanaka plateforme boo ci ubbi ci loolu la ñuy wax leen Salif Mbaye mm. mooy mbir mu soxal Gana Gueye fu mu nekk nii vague d'indignation également vague de soutien Je mi ngi di am ngir jappal tank doomu euh, gaynde bobu doomu sénégalais bobu nga mom modi di sa euh, bi nga ci euh, barki wala week bi vraiment mi am ay soutien ginaaw bamu taxawé ni mom mbub mi bëgg di LGBT di borom ñaari sol Tay, du sol kon ministre Matar Ba jot na ci wax gis ni également président Macky ni ki sa page Twitter également wax mais également Abdoul Mbaye l'ancien PM wax si Mamadou Lamine Diallo bu ñu sukkandikoo ci Seneweb ba bataille ci euh, également démb le leader du passé les patriotes Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko également Danati, def ab sortie ñaawlu ko également gis euh, OEN, par société civile ONG Jamra ak ñi nga xam te ñoom nitu de Abdou Karim de xurum xaq également ils ont tenu une euh, conférence de presse pour quand même euh, dénoncer ces actes euh, yi nga xam te jàpp nañ ne euh, dafa nek lu anti-valeur jëm ci sunu xétel sunu diine kon mu nek lo xamanteni kon euh, buñu sukkandiko ci bataxal moy fi nek ñu bari ñi ngi wéy di amal seeni bataxal bataaxal mën nañ cee jàpp également ki di Idrissa Gana Gueye ak bokk ki di bokk Sadio Mané ak Edouard Mendy nañ japp ne ak ki nga xam mo soxol waaw avant manam Idrissa Gana Gueye kon ñaar ñi di doomu gaynde yi tamit it jot nañ leen euh, ñoom it daanaka amal ndimbal jëmale ko ci ñoom ci acte yi ñuy subir foofe parce que bu ñu sukkandikoo ci Sadio Mané ak Edouard Mendy également daan nañu am ay jafe-jafe yu mel noonu ci mbirum xeetal ak mbirum beddi kon mu nekk loo xamante ni fës na kon euh, ci sunu toile bu fekkente ni également l'élément de euh, Babacar Tounkara est disponible dañ ci rek daal di dem mais en attendant dama lay daal di delloo li nga xamante moom moo soxal lii di kaddu gi. merci beaucoup Abdoulaye mu nekk li nga xamante ne ñu ngi koy seen fan yëpp ci toile bi comme ni nga ko waxee mu jëm ci lépp lu laal ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Gana Gueye nga am ci ban jàngat tax ban gis-gis moxtaar waaw Idrissa Gana Gueye li mu def acte bu am solo la mm-hmm. parce que ak de courage la def ak acte de parce que li mu def Sénégal yëpp loo ko defal parce que li mu def mënoon na ko ci bañ a fekk parce que bu fekkoon ne xaalis rek la jiital wala mu jiitaloon ngorom kon mënoon na ko ci bañ a fekk kon Idrissa Gana Gueye ñun dañ koy féliciter di ko encourager parce que li mu def wane na ne c'est un véritable sénégalais c'est un sénégalais digne de ce nom li mu def ñun ñëpp la ko defal. kon nag dañ koy soutenir di ko encourager. Mm-hmm. merci beaucoup Fatima. waaw man nag euh, li ma comprendre waa France mooy lan moo tax ñoom ñu am seeni opinion ñu bëgg ñu ko imposer loolu laa loolu laa mënul comprendre dëkk bu nekk ak ay réalité am dëkk bu nekk ak moom nu muy gisee dëkk dëkk bu nekk ay conviction religieuse dëkk bu nekk ay convictions personnelles, am culturelle mais lan moo tax ñoom ñu gëm loolu ñu bëgg a forcément ñeneen ñi gëm gëm loolu c'est pas c'est pas possible et je pense que euh, nit ki soit da ngay gëm wala doo gëm mais ay gëmantu moom mënul am te je pense que ki nga xamante ne moom mooy gànn gay lu mu def dafa wane ne moom carrément gëmul lii moo tax euh, defu ko te defe naa ne si jamono ji ñu toolu fayub yàlla moo gën fayub euh, satan comme comme niñ koy waxee euh, que le combat bu dee ñoom dañ ko bëgg a def combat je pense que ñëpp dañ ciy jàpp nañu nañu continuer wax dégg naa sax am ku ne affaire yi euh, nekkatul ci cadre football maintenant dafa nekk affaire d'état ndax mm. président Macky Sall bu mu génnee def tweet ki nga xamante ne mooy Emmanuel Macron moom aussi dafa def benn benn tweet boo xamante ne dafay euh, juyoog ak li nga xamante ne moom la président Macky Sall wax ak lu mu si mënti doon euh, nañu xam ne ne ñun lu ñu gëm loolu la ñu gëm que sa soit mu nekk ci football ak ci domaine bu mu mënti doon ak dëkk bu mu mënti doon ñun loolu la ñu gëm dañoo soutenirul benn yoon li nga xamante ne moom mooy euh, ñoom seen association yooyu donc je ne vois par le mal lan moo tax ku ci nekk rek war a jug mën a acharné wu ci ci sa Gana Gueye nit ñi ku ci nekk di wax je pense que euh, dafay dafay xaw a sax njuróog li nga xamante ne moom injustice et Idrissa Gana Gueye ñu ngi koy encouragé bu bu baax a baax di wax na ne ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaawam. mu nekk lu doy waar en de société kii ñeu expliquer africain yi nakal la ne polygame yi baaxul mu nekk euh, témoignage bari na ci ay internationaux yi nga xamantene ne ba léegi ñu koy fësal bu may lire nak nekk Bassou Diomaye et Camara mom nak lu muy ñaawlu moy ne le deux deux poids deux mesures bi nga xamantene yag yàgg nañ ko gis guleet du lu bees waaye tamit nak ku nekk am nga.

ñaareel ba c'est sa révision mm. ñetteel ba Sénégal ñun ku nekk gis na ànd saamu jukko yi coono giñ ci daj ak niñ ci taxawee donc nit ki li mu gëm da nga ko koy gëmle même bu fekkee yow da nga ko jël mu lay liggéeyal il faut respecter ses convictions parce que nit ku ne dafa am nooy doxe ak nooy dunde ak nooy doxale sa àddina donc man je ne vois pas pourquoi ñu bëgg ka def affaire d'état wala même ak lu warul doon dara mhm. c'est sa conviction c'est sa position mhm. mooy gëm-gëmam mooy dis-disam mais nañ ko ko respecter parce que moom la ñu ne daf ko respecte ñoom it nañ ko respecter li mu am mais il ne faut pas ñuy imposer nit que lii la bëggul ah en conscience et naam diggam ak yàlla mais mënul sol tëri boobu du ko sol du ko sol mënu ko sol loolu la gëm loolu la dis kon loolu lay def il faut ñu jàppale ko ci respect comme ni nga ko waxee nag déjà Sénégal mi ngi am problème boobu ak ànd saamu jikko yi bu ñu acharné woo ci kaw Idrissa Gana Gueye ah day gën a kumb rek mm-hmm. day gën a metti merci Ababacar Tounkara ñu jaaral si daanne reportage bi nga xamante ne defal nañ ko ci li jëm ci wàllum Idrissa sa Gueye ici tout de suite Le football était un sport d'équipe, mais chacun est libre de ses appartenances et de ses idéologies. Nous sommes le pays de la laïcité. Nous sommes un seul peuple, un football faux. la France mondial Qatar alors mais ce tour il Goré te Goré, bu Idrissa Gana gay. football du tax garandal sagaru drapeau du tax nga soufel sa diine ak sa drapeau ñak lepp am yalla mo la gënal am lepp ñak yalla sen xas du tax ñu xof bay loof kon di ngeen dof ndax idi du ko bay dof Mbappé di cas sponsor ngeen di xof idi fonk diineem koy fi moy Sénégal góor jigen du fi teeree de ko musulman ak chrétien duñu et sax ay crétin nul n'est au-dessus de la loi mais Dieu est au-dessus de toutes les lois aucune religion n'accepte votre gaieté té ñu gënal suñu foi Idrissa Gana et gay, le football uni mais confronte deux équipes, le même objectif mais pas les mêmes systèmes, ni les mêmes idéologies. Le football était un sport d'équipe, mais chacun est libre de ses appartenances et de ses idéologies. Nous sommes le pays de la laïcité. Nous sommes un seul peuple, un seul but et une seule foi. Et rien ne sera au-dessus de notre foi. Yalla gay. Hashtag TV.

dama lay bàyyi wax ci sa xalaat laataa ñuy waxtaan ak moom euh, Momar Talla. ah mu nekk loo xamante ni fi euh, euh, nekk nii mën nañu jàpp ne tax na Sénégal gën a amaat benn élan solidarité boo xamante ni ñu koy wane à envers leur kii yi nga xam ne moom moo di seen i mbokk ndax ku nekk xam na ne on se rappelle du du ballon d'or beeg coow li ci am. sont nés comment eh, niñ doon bëgg a écarter sunu ay doom ku ci melni ay Edouard Bindé ak ki nga mm, Sadio Mané donc à chaque fois ñu wane ben haine envers vraiment les Africains nit ku ñu na nak Sénégalais bi. donc ma japp que c'est un signal fort également pour les dirigeants ñu gëna a xamaat lan lañu l'année lan parce que euh, euh, malgré tout limay critiquer la politique de Sangor. quand même la culture daf ko au cœur de ses politiques ba daf ko doon à l'étranger ba nga xamante ne ñu jàpp ne euh, nit ku nekk war nga am loo moomal sa bopp loo xamante ni kenn ci ma c'est un signal fort dans la mesure où également dans nos écoles on a commencé à intégrer dans les programmes euh, sur les yi ñu jàngal leen li nga xam ne moom la suñu réew baaxoo lan parce que l'INI, nii dafa euh, on doit même au sein de l'État revoir suñu système ak sunu euh, langue yeeg sunu sunu sunu administration parce que tey dit dans des du du rek euh, mais da ngay xool ci entreprise sax pour nga liguer euh, c'est ce sa fois pour nga exercer ko fa sax problème lay poser wu. man je me rappelle à mon une société bohème xam ne mas naa faa jaar jot faire liguer mais même du sax d'un ko fay donc beaucoup nest ci l'une des raisons yi nga xam ne sax man moo parce que man sama ngëm-ngëm sama foi kenn mënu ma koo donc tout à dafa am fii ci réew mi am Dakar ak yeneen gox yoo xamante ni yaa ngi dégg boo demee ci entreprise a a teg fii boo xamante suñuy jikko suñuy valeur dara du ko dindi parce que day mel ne ba tey dañuy dund li fi nekkoon ak tubaab yi ak kilifa yi diine ndax tubaab yi ñoo fi fixé woon ay heure ay 14h30 ne leen di da leen di déranger bu ñuy julli seen nodd yi dañ leen di déranger

vie nga def joxe ko noonu ci loo xamante ji mën naa fay 40 ministres bu ñu ko doon xool ci gouvernement président Macky Sall bi kooku dafa wane ne alal ji man sama ngëm-ngëm moo ma ko gën a fort moo ma ko gënal au moment où certains nekk ci yeneen réew lu mel ne ay Dubaay sangam di jaay seen ngor xaalis kon loolu dafay wane ni gëm-gëm diine dafa bokk ci doomu aadama loolu dafa nekk ci li nga xamante ni ëllëg suñu borom bi daf lay laaj yow naka nga doon jaamoo naka nga doon doxee ci ko suuf kon malgré alal bi yëpp kenn ku ci nekk dafa am foi bu mu gëm naa nag comme euh, buntu yi ñu bëggoon mënuñ koo am euh, tey jii nag ñu ne nañ ko jaare ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di star yi ñi kat buñ ko solee dañ tax seen message gën a dem parce que lu toll ne 14 nga ne da nga koy jagleel journée euh, bu 14 bi mai bi pour jagleel ko ñi nga xam te ñooy xeex wàllum borom ñaar turi nga ne ko sol ko pour xeexle leen loolu mais loolu képp kuy julit képp ku gëm sa gëm-gëm doo ko def doo ko nangu kon yaa ngi véhiculer message bëgg leen a jàppale moo am droit bañ loolu loolu aussi day wone que ne ñi nga xamni ñoo di star yi ba ci sun rew yi amna ñu bari ñi ngi nek ay innocent ñu leen di solloo ay colko yo xamni c'est pour véhiculer le message des LGBT parce que gis nañ ni canon yépp ñi ngi koy essayer mënul jall ñu nañ dem ci ñi nga xam ne am tour tur leen dégg donc en tout cas mu nek lo xamni lu doy waar la te war nañ ko revoir bu baaxa baax pour que suñuy ngëm-ngëm ak suñuy conviction ak suñuy diine dara bañ ko salfaañi merci beaucoup waye tamit comme li ñu wax deux poids deux mesures yi Naar Fall mi nga xamni ne ki nga xamantene moy di Kylian Mbappé dafa bañoon na dal di jël image am taqale ko yenn sponsor yi mm-hmm. yarawatina loolu tamit nga xamante moom mënul sol yére bi parce que bokkul ak li nga xamante moom la taxawee diineem mu taxawee bokk ci sol yére yi nga xamante day mandargal ni dañuy jàppale lu ni mel ñu war indi coow gudul jeex en plus tamit man ginnaaw loolu ci wàllum politique bi lan la ci Valérie war a mën a yëkkati ay kàddu di ko ci teg di ko ci wax quoi il est concerné ci li nga xamantene mo jëm ci lolu bobu le combat en quoi il est concerné, concerné ci li nga xamantene mo jëm ci football adjulay mais mais moom dafa répéter rek li Charles Pasqua defoon en 93 bi euh, sous le régime de de de Jacques Chirac qui euh, monogamie

lay firndeel ne yeneen loo ci dolli kooku du am sécurité euh, familiale du am yenn charge yi nga xamante état moo ko moom alors ñu respecté ko léegi ñun suñu réew aussi mais am droit ñu respecté li nga xamante ni day day day day day day ak relation euh, socioculturelle ba pare euh, Valérie Pécresse je pense que moom sax dafa amal gàcce Sénégal fii lañ ko élevé jox ko fi ay raay yu mag si suñu université yi fii jox ko fi bés bés bu am solo jagleel ko ko donc tu es dit muy ñëw tourné di one li nga xamante moom moo di comportement comportement envers euh, suñu au-delà d'une question géopolitique boo xoolee président Macron def na Twitter tant président présents Sall day dem ba nekk la guerre nag guerre géopolitique lay donne relations diplomatiques yi nag lépp sax mën na caa juddoo. Hmm. donc mu nekk loo xamante daal en tout li euh, les états nag ñoom les gouvernements ñoom ñoo jël seen responsabilité bopp parce que nak réew bu ci nekk aussi yow yaay yaa moom sa territoire bopp yow yaay yow yaa yore sa kaaraange ku réew sa kaaraange rek nekkul ci sécurité yor ay armes mais kaaraange si wàllum. Euh, ay propos ay cadeaux société yo xamante ni mën tas aussi c'est à revoir donc mu nek lo xam ne kaddu Pékérès du ñu bête parce que France lañu ñu dégg Zemmour wax fi lu ñaaw wax ko fi ci africain la la la la donc mu nek lo xamante ni rew France bu juk wax loolu donc duñu ñu du doon luñuy ñuy dañ koy ñaawlu mais du doon luñuy ñuy bett. li ma si bëggoon yokk rek képp ki nga xamante ne euh, joueur international nga nekk musulman dafa war a nekk sa combat. je ne pense pas que bu nekkoon Mo Salah wala ay Karim Benzema wala yooyu. Hmm. est-ce que dina am peut-être autant de d'acharnement ci hmm. ci ci ñoom. Hmm. donc euh, je pense que képp ki nga xamante ne rek yow joueur nga nekk musulman yow da nga war a wane da nga war a fësal sa soutien ki nga xamante ne. sa combat kay ça dépasse le sphère musulman kii. Euh, euh, Fatima. Mhm. dafa dem ba nga xamante question de liberté tu es libre yow ci sa principe ak ci nga xamante ne moom que religion ou autre. Mhm. tey sa jom sa kersa sa diine bu la ko tu es libre. Mhm. comme li liberté comme la démocratie tu es libre de de s'abstenir. tu es libre de ne pas y participer. donc sa romb na sax mu ko toutes les personnes rawatina tous les sénégalais. fu ñu mën ci nekk ci àdduna bi ak fu ñu que euh, tu lu ñu mën a représenter ci àdduna bi tu woo nekk ci ginnaaw ki déjà ça a commencé tout le peuple sénégalais est derrière ce fils du Sénégal qui est Idrissa combat euh, combat parce qu'il s'est abstenu euh, honnêtement il a été correct il s'est juste abstenu par rapport à la situation ne bokk ci bokk ci kenn ko ci boole un point un trait kon nañ ko respecté le mois wax mm-hmm. comme il a dit c'est un sénégalais et c'est un fier sénégalais mm-hmm. ci noonu la ñuy dalalee moom waxtaal sekk ñu waxtaanee sokk du moins mm-hmm. ñu waxtaanee ci lépp li nga xamante ne moom législative 2022 coalition ànd Naolé, ànd liggéey face aux difficultés du parrainage loolu la ñu jàngat Abdoulaye Léna Sarr Mbaye jaajëfal na ni nga nous waxee noonu la amee euh, bokk na ci wàllum législative yi ginnaaw bu ñu jugee ci wàllum sport bi xam naa euh, yaa ngi koy wax sànq sax mbay seen fekkente ni dina yem incha allah moom dina si addu ci nu mu gën a yaatoo euh, ndax jamono ji ma nga ca tugal ca euh, Paris à la France donc ñu wax ci wàllum législative bi ak politique bi fii ànd nawle bu Serigne Mboup ñu gis ne moom jot naa yóbbu listam waaye liste daa mel ne daanaka moom ba ko déposé rawur liste ba fekk daanaka jiitu ko këram <laughs> ndax lu leen bett la wala déet <laughs> jërëjëf Abdou. Ah, jërëjëf ah, <laughs> jërëjëf Leena. Mhm. Euh, le suñu liste ànd euh, ndaw la ànd liggéey. Mhm. defar nañ suñu liste comme ñëpp nañ ko def parti politique wala coalition yëpp ñu defaree liste. Mhm. bi ñu defaree suñu liste ñu déposé ko euh, déposé nañ cinquante cinq électeurs lañ déposé. bi ñu ko déposé ñu xaar commission bi réunir. bi ñu réuniree ñu ne ñu seen liste kat dañ ko rejeté. bañ ko rejeté mhm. ñun kenn dégguñu parce que comme nous sommes des républicains te ko xam le président Serigne Mboup xam ne que c'est un homme pondéré. et c'est un homme poli la moo ñu rejeté leen. hein la moo ñu rejeté leen. wa dina ci ñëw. dina ci ñëw parce que buñ la rejeté. Mhm. après dana am ab bo xam dañ la jox notification. Mhm. de rejet. moment boobu nonu ñu waxuñ dara. parce que am na ñuy rejeté ñu def ay conférence de presse parce que c'est leur droit. mais ñun comme amuñu won notification bi mënuñ wax dara biñ ko jotee nag ñu def càmbar euh, monsieur Moubarak Lo ñëpp xam nañ ko muy économiste statisticien mu nekk ku sérieux ah ñu jël fichier bi ak ak ak ay ingénieur ak ay statisticien yoo xam ne ñoom la liggéeyal biñ ñu liggéeyee pare ñu def vérification biñ ñu defee vérification ñu trouvé que ne ñun dañu defal ne am nañ parce que d' abord euh, valide yi ñun 27 709 la ñu am comme valide. Mm-hmm rejet 26 26.166 rejets. sur les 26666 6.094 double. ay doublon mmh. par région ñu jël région yi nga xamné fa la rejet yi gëna ëppé mmh. muy muy région Kaolack Thiès Kaffrine Diourbel ak Louga mmh. bi ingénieurs yi defee chambar bi ak statisticiens yi nga données lañ ko parce que ñun fiñ sur non inscrits parce que dañuy un rejet non inscrit rejet non inscrit ñun ko parce que système bi nga xamné bam la di parce que sommes un système dañ ko paramétrer rek mais le système bi ñi liggé ñom amuñu benn marge bo xamné erreur par exemple vous né nee fait de temps. bi ñu def benn L benn L rek motif de rejet alors que yow répondre nga critères yépp muy

au niveau de Kaolack sur Kaolack nous avons 6292 réserves non recteurs. Mhm. après vérification nous avons 5620 c'est des électeurs. Mhm. c'est des électeurs nous avons 3114 non électeurs lañ fichier nous avons 3038 c'est des électeurs identifiés. Mhm pour Café, nous avons 1864 réserves non électeurs Nous avons suñu euh, informaticiens 1551 électeurs qui avons voté nañ sax élection locale yi région urbaine. Nous avons une région non électeurs 1828 Si nous avons des experts yi vérification Nous avons 890 électeurs C'est des électeurs Nous avons une région de Louga Nous avons 1193.

parce que avant ñuy déposer aussi. Hmm. am na des informaticiens aussi doon liggéey ci fichier mais xam nga nga war 55 000 et quelques. Hmm. électeurs war koo dugal nit day sonn nit nit la rek aussi les délais sont courts. non xam nga dafa am lu ko wax révision des listes électorales. Hmm. nga xam ne di nga xam ne fichier bi kat. ay non inscrits yi ngay wax ni yëpp dañ koy prendre en compte. donc mënoo tëb a tëb dem ba ci biir ngay non pas non inscrits. xam nga parfois dañ dañ da ngay am Nous d'identité ñu la ci non électeur. du loolu ni c'est des électeurs comme li ma la wax sànq xam nga booy déposé. am dépôt matériel mooy clé bi. clé bi ak dépôt physique. xam nga ci dépôt matériel bi foofu la lay am erreur. est-ce que vous comprenez maa lay dégg ci dépôt matériel foofu lay une erreur. parfois nga comme par exemple exemple bi ma la jox taala deux L nga def benn L wala euh, numéro électeur bi. saisit saisie bi daal waaw ci saisie bi waaw kay ci saisie bi foofu parfois am problème loolu noonu waa DG dañ koy rejeter comme non électeur mm. te alors que ñoom ci seen euh, communiqué bi nga arrêté bi nga ministère de l'Intérieur, le 27 avril bi passé maintenant na lire arrêté bi mhm. arrêté bi euh, moy ci bo arrêté bi le 27 avril 2022 mhm. article 6 mhm. la ci ci gën karaw lire quoi dañ il s'agit de contrôler principalement le nombre global de parents recueillis et le, le conforter aux dispositions de l'arrêté qui fixe le minimum et le maximum de parents requis. Le surplus de parents est considérée comme nul et non avenue et, non n'est pas tenue en compte au moment du contrôle des parrainages. Mm-hmm. Si les parrains sont des électeurs identifiés dans le fichier général des électeurs, cette opération est basée sur une recherche multicritère portant principalement sur les prénoms et noms, le numéro de la carte d'électeur, le numéro d'identification nationale, une erreur purement matérielle portant sur la transcription ou la saisie d'un élément de contrôle ne peut en aucun cas être un motif d'invalidation d'un acte de parrainage. Si la recherche multicritère ou le recours à la fiche de collecte permet son, identification comme électeur. Si l'obligation de recueillir au moins 1000 parrains dans, au moins cette régions respecté faram fàccaa ko sama maam ji nekk fongale mi. waaw maanaam. maanaam doo ko ko moom nu mu ko comprendre. Mhm. waaw mu xam ci ci xaatim bi ministre bi. waaw kay la ci leeral pour ñu xam. waaw kay dañ ne. Mhm. fii ci article six. Mhm. dañ ne fii nii. Euh, parrainage bi. bi nga xam ne moom lañ joxe fiche euh, euh, électronique bi clé bi boo xamee ne erreur bi ci erreur matériel rek la ci saisie la ci prénom. wala nom wala numéro di d'identification bi loolu noonu. nous ko basé comme invalidation candidature parrainage mhm. bu Vous faites sept régions qui Sénégal am nga fa mille mhm. au moins mille paris. Nous ñun au au ñun am nañ sept régions valide mhm. Louga Dakar Thiès ak Tamba et ak Kédougou sept régions yooyu am mille kon ñun article normalement nous, bu connaître euh, commission bi nga xamné au niveau de la DGE euh chamber bi chamber ba 12 000 électeurs yo xamné ay électeurs bien identifiés sur le fichier parce que ñun 7 000 lañ waro lañ pour nous combler 12 000 plus les doublons xam nga doublons yi am nga droit c'est dans les de 48 heures nous ñu notifier la mandataire nga remplacer ce doublon mais 12 000 non ordre d'arrivée doublons par ordre d'arrivée non doublon mhm. selon l'article 2, 2 qui arrêté bi nga xam le ministre bi génne mhm. à partir de jox la notification mhm. Ah? dans les 48 heures le mandataire a le droit def euh, euh, remplacement doublons. Notification. notification. mais doublons pour rectifier boobu non, ben yoon rek nga mën a am droit pour pour def ko mais bi beaucoup, Bi dañ ne la bu fekkee ne erreur bi erreur matériel la erreur matériel ci am nga loolu motif boo motif d'invalidation pareil là. dañuy dem ci fichier physique parce que comme il est comme amul amul njëriñ ñuy ñuy déposer fichier physique. mais est-ce que tamit ci xel. le rationnel xel nanguwul tamit. Mhm. li dafa am enjeu élection mhm. législative. Mhm. est-ce que xel nanguwul tamit li ma lay wax nga jël sa temps jël sa clé. yéen ne nga li nga fi euh, ay experts. ay informaticiens. ngeen toog càmbar bu baax dépôt physique bi. parce que da ngeen yor document yi. Euh, ci ci ci ci matière bi nii. ngeen xool bu baax càmbar ba mu leer na ne kat. parce que doublon moom yéen mën leen koo xam peut-être ñoom. parce que outils yi ngeen amul. normalement dañoo waroon am outils yoo xamante ni boo yoree sa tablette. képp ku xas ba euh, émerger fenn. da ngay xam ne kii. daf la koy signaler ne kii moom mënul ñëw ci yow. donc loolu malheureusement loolu ci

ah waaw xam nga xam nga xam nga xam nga tey jii système bi c'est à parfaire mm-hmm. mais li ngay wax nii ñun am nañ liggéey nañ ci avant c'est le lieu aussi de parce que man mënuma dégg nga naa ma. Mm-hmm. Euh, bon benn el lañ fàtte fii mais pourtant ca physique ba nangam. waaw mais loolu c'est c'est un peu terre mais dëgg li ma la gën a fii ci article article bi. waaw article bi nee nañ bu fekkee ne erreur erreur la. mais est ce que danga war a xaar article 6 ba est ce que yow mënoo def sa liggéey. ba pare article 6 mais mais mais Abdou. ah allez-y Abdou Abdou dafay nekk avant. waaw mais ah mais Abdou. xam nga yow. non non lii kii la arrêté la dañ ko bind rek waaw arrêté la dañ ko bind mais loolu daf daf ñu tënk. waaw mais bu fekkee ne yow da nga war a toog nga war a remplir cinquante cinq mille quelque yoo xam ay ay électeurs mais nit nit la rek. mais parfois yow sax ngay bind benn kii rek nga fàtte. nga juum nit ay nit nit nit la deux zèle daf gaa yëpp prétexte boobu lañ joxe nit ñi la day non mais non non nit ñi la day juum dafa am non dafa am fu ñu koy accepté may ko mu wax may ko mu wax c'est que man man si Abdoulaye lu mu wax dama ci xaw a d'accord parce que yow ci sa ñoom boobu da nga ne ñoom dañ leen annoncé que y a plus de six mille su ma juumul ci say note six mille et quelques électeurs yoo xam te dañ leen wax ni non non inscrits vingt six mille cent soixante six mooy lañ def rejet non non waaw léegi nga ci calculé ngeen am na foofu ba ngeen demee ban dëkk six mille waaw Kaolack Kaolack six mille et quelques 6292. dañ leen wax ni ce sont électeurs Les experts waaw. léegi seen expert ba mu ko gisee ba pare. Mhm. gis na ci ñaata électeurs. 5620. ba tey y a une différence kon ñoom lu ñu rejeté lu mu bon bon bon am na peut être même bu ñu juumee ci nombre bi. Mhm. ba tey y a une différence parce que mhm. seen expert ba mu génnee génne na 5000 et quelques. 5000 et quelques bi ak 6000 et quelques y a plus de 1000 électeurs kon yoo xamante ne ce sont des non électeurs. kon yéen ba tey foot bi seen côté. non d'accord d'accord d' accord naa ñun am na marge d' erreur bu ñu def dañ koy d' accord. boo déggee àllantaa la ñun waa DGE duñ parce que nous sommes seen mais travail préalable mais parfois nous avons des erreurs. Mhm. parfois de saisir des erreurs. mais erreur nous avons clairement des erreurs matérielles. Nous n'avons warul motif d'invalidité, d'invalidité parrainage. Mhm. normalement commission la commission wax pour rectifier recours au niveau du conseil constitutionnel. mais le recours boobu sax ñun waruñu ko war def. parce que ñun normalement article 6 bi nga xam ne moom la arrêté le ministère de l'Intérieur. intérieur def. ñun faj na suñu soxla. Mhm. te yaakaar naa ñun bu ñu demee ñun suñu candidature ñun am ci yàqin na ñun bu conseil constitutionnel waxee le droit ñun suñu candidature day jàll. mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko rejeté est ce que ñoom. Mhm. jël nañ au préalable li nga xam ne moom article 6 bi. si si parce que ñoom ba ma jox exemple. ñu mhm. ne suñu mandataire Mbaye Ngom bi mu demee ci à la DG. E. ñoom dañu na ko wax dëgg yàlla dossier Anna Nawlé mooy meilleur dossier bi ñu indi fii nii loolu moom suñu mandataire moom moo ko wax waa DG wax ko. ne seen dossier bokk na ci dossier yi gën a gën a baax. kon nag loolu bu ñu ko waxee pare après ñëwaat ñu kii ñëwaat ñu indil ñu loolu noonu dafay dafay am paradoxe daal. waaw yéen daal seen contre attaque bi dafa xaw a nooy. Mm. trop si ni ma ko gisee parce que. Mm. yaa ngi naan mm. non c'est parce que bëgguñu coow ak affaire boo ci wax. Mm-hmm. parce que tamit ay responsable lañ. Mhm. président Serigne Boubou responsable lañ ñun ñi ànd ak moom aussi ay responsable lañ xam nga tamit di wax loo xam ne da nga koy wax dans leer rek amul njëriñ. Mhm. balaa nga wax ci dara da nga koy maîtriser parce que man li may wax nii ñeme naa ñeme naa ko wax fu ne. te suñu avocat yi avant may ñëw ci lii lañ déposé au niveau du conseil constitutionnel dossier bi lañ déposé. te aussi c'est un dossier béton boo gisee ñun waxuñu woon. parce que dañoo bëggoon a réunir les experts xool ñi nga xam ne seen euh, xam-xam màcc na ci loolu. ñu def liggéey bi bu ko defee ñu mën a def conclusion ne wane ne wax dëgg yàlla ñun rejet bi ñu def nii wax dëgg yàlla rejet boo xam ne la ñun. yéen seen rejet ci côté erreur mais yow wàllum respect parité bi yéen amu ci problème. non non non wax dëgg yàlla ñun amuñ ci problème. parce que article 178 bu bu bu code électoral bi moom foofu moom daf cee daf cee sévère moom. non non amu ci moo dal waa waa waa waa Yewwi actuellement amu ci problème d' accord mais yéen est ce que tamit boo xoolee lu mel ne Yewwi mhm. ak euh, waa. Euh, walu ñom seen ngoro gi da am ciow yeen est-ce que tamit ci seen bir euh, ni ngeen warono a euh, deug deug est-ce que du lu ngeen patam patami parce que d'ailleurs sax waye yes je pense que dëggoon nañ ci yeen xamone nañ def ba gennat donc est-ce que du nit ñepp nañ gaaw rek su mbuxlo rek dem waaw ngoro go xamanteni amul ni nga mel ak amul neexalaté yo kat jek nga ak nangam sangam ñew rek dugg ci non non wax deug yalla ñun mhm. xam suñu leader le président Serigne bou mhm. xam ne nit ku méthodique la mm-hmm. nit ku xam fu jëm la mm-hmm. AIS boobu ngay wax noonu le président Serigne mm-hmm. ah, ah. bu baax bu ñu war a de presse bi mu defoon Touba Sandaga nee na AIS boobu noonu peut maam Cheikh Mbacke suñu Serigne ñu ngi koy nuyu de passage dafa gaawantu def ne kii alors amuloon benn union ak ñun ak moom. amuñu benn accord ak moom. waxtaan nañ waxtaan bi kiiwut. moo mu ne euh, Serigne en coalition ànd na laa nekkoon génn naa fa. mais amuñoo nag moom benn accord. waaw foofu moom. dëgg yàlla moom nee na lu tax mu génn fa dafa amoon manque de considération. non non manque de considération dañoo amuloon nag moom accord rek. mu après moom il s'est précipité après mu wax ne moom.

président Serigne Mboup kenn dootu ko président ci Sénégal. xam nañ fi mu jaar gis nañ li mu def il a fait ses preuves. ku mel ne Moubarack goo ñëpp xam nañ ko. moom moo jiite suñu liste au niveau départemental au niveau de Louga. de Louga mhm. ah nga jël ku mel ne Imam Tahir Fall bu nekk ITV. kooku jiite woon euh, association xuma des des des des pré euh, kii de Daara Serigne Serigne Daara. Mhm. jiite woon ko ñëpp xam ko. ak ñeneen ak ñeneen soxna May Mbàkke mm-hmm. nga jël suñu doyen bu Gumbala Nday Lobe Lam ainsi de suite Babacar Gueye bu Thiès jom Jibril Ndiaye mm-hmm. yaaya yaaya wan mm-hmm. ak ñun ñi wax dëgg yàlla dafa dañoo nekk liste boo xam ne liste bu sénégalais am yaakaar la te wax dëgg yàlla foo dem ci réew mi dañ naan le président Serigne Mboup espoir la am nañ ci moom yaakaar te aussi bëgg nañ mu dem au niveau de l'Assemblée nationale. mais mais sànq. Mm. sànq euh, yaa ngi wax ne. Mm. def ngeen recours conseil constitutionnel. Mm-hmm. mais waru leen waru ko woon sax def. effectivement ndax article six bu arrêté bu ministre bi. Mm. tënk na leen baa euh, baadu kon yéen bu ngeen demee foofu tamit. dara da du leen fa bett bi ñu leen ñëwaatee ne leen dëpp leen nit bi. waaw xam nga ñun li ñu war a def la war a def parce que comme ay républicain lañ. Mm-hmm. ay sénégalais lañ mënuñoo xataraayu mënuñoo forcer. li nga xam ne yoon moom la ñu may rek lañ mën def. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla dossier bi ñu am wax dëgg yàlla bu yoon waxee rek bu yoon waxee rek. Mm-hmm. ñun suñu dos suñu suñu am nañ yàqin na ñun suñu liste dafa war a jàll. bu fekkee ne yoon rek wax nañ ko Sénégal. non da nga jàpp ni yoon waxul. ah. da nga jàpp ni dama waxee noonu rek parce que conseil constitutionnel moom mooy. mooy juge en matière d'élection ndey charte mm-hmm. moom mooy moom mooy ala kuli alin foofu lañ koy yóbbu. te ñoom yaakaar naa xam nañ seen liggéey jàng nañ ko. on mhm. les appelle les sept mhm. kon nag buñ càmbaree xool article bii. Mhm. xool éléments yi leen jox. wax dëgg yàlla ñun suñu candidature du am benn problème dafay jàll comme lettre à la poste. léegi yéen a ngi koy diir bi si ñaata la tool bi ngeen ko déposé léegi. tey jii lañ ko déposé. Ah, conseil constitutionnel am na 112 heures pour statuer. ok donc euh, fii ak deux jours. fii ak deux jours leen dafa mel yaay booy ji moom it. Euh, yëkkati kan. Mhm. moom daa mel demul moom it daa mel ne. mbaay <laughs> ko parce que moom am na casquette politique aussi madame Diouf ci waxtaan. ci waxtaan bi xam nga xam ñaata doublon nga am yow daa mel sa liste demul. man man moom dawuma liste dugguma liste. Ah. ñoom ñi sax sollicité woon nañ ma. Ah, ah, par rapport au départ woowaat département de Pikine <laughs> ah, man sollicité woon nañ hmm. hmm. man moom vraiment dugguma woon dugguma ah, woon ah, waaw xam nga xam nga coalition yi liy indi problème bi mooy non seulement le temps et imparti hmm. le ñu ni la le 6 lay ubbi le 9 lañ koy tëj je pense que bi ñuy ubbi le 6 fekk na coalition yu bëri mëtaguñu am na ñoo xam ne sax duggooguñu waaw de ce fait que euh, yi am na ñu dugg si indiwuñu wuñu mhm. am ñu dugg si mëtle nañ mhm. am ñu dugg si mët la xoolal ñu ni la la 6 nga war a déposé au 9 yow la cinq fekk yow duggagoo ci coalition bi joxe goo sa parrainage mhm. donc moi je pense que mal bi yëpp foofu la ne problème bi yëpp foofu la ne man na dama xamul est-ce que est-ce que normal dul woon euh, kii bi logiciel logiciel est-ce que normal woon ñoom bi ñu tirage ba pare ñi nga retenir est-ce que normal nous ñu mettre à leur disposition pour nous ñu remplir ko hmm. je ne sais pas est-ce que c'est confidentiel est-ce que mënuñu arriver hmm. au point où les les coalitions ou les partis retenus nous hmm. jox les logiciel boo xam nous les dañu koy remplir ça fait gagner du temps et il y aura plus de Moi, li que dire que problème bi koo wax rek danaan la moom pare naa salué nañ ko lu ñu ànd la parce que tamit quoi qu'on puisse dire euh, ñëpp bu ñëpp nekkee ci ay parti ñëpp nekk ay coalition kenn du voté mi ngi mel ne tey jii fii bu ñëpp doon jaay xaw ma koy jënd xanaa ku ne jëndal sa morom kii jënd ci njaay sa morom c'est-à-dire que il faut mu am une organisation démocratique il faut que mu am euh, filtrage mais filtrage bi aussi dafay laaj ay jumtuwaay moo tax boo xool euh, depuis avril 28 euh, avril bi waa CEDEAO yónnee seen kii boobu dañ ne nañu ko supprimer pour ñu lever les obstacles mm-hmm. waxuñ ne buñ ko fi amal mais dañ en fait nañu fexe ba càmbaraat ko parce que dafay laaj ay moyens pour man war nga mën a am logiciel boo xam ne tey jumtuwaay boo xam ne tey ji boo ñëwee di di signé dañu am loi boo xam ne sax dañ ne képp ko paree ne deux fois dañ la war a yoon daf lay teg loxo daf lay alamaan daf lay daan mais tey ji est gënutoon tamit nga am logiciel boo xam ne tey ji yow boo naree paree ne ki daf lay rejeté dafa lay wan yow mënuto bokk parce que am na fas boo foo xas ba dugg ba nopi est-ce que loolu du won gëna rendre transparence li nga xati mom modi système de parrainage pour man foofu le le le erreur bi nek erreur matérielle bi nga xamanteni du côté de l'État pour l'organisation des élections pour man loolu lañu waroon ne parce que la mode la mode la méthode archaïque bi ni mo xaw mo moo xaw indi problème yu bari mais période pré pré préparatoire bo xamné ne par exemple dañuy jël 1 mois avant le début des dépôts ñu

boobaa parti duñ bëri. parce que parti yi dañ ko rationaliser. niñ ko defee day am problème toujours buñu ñu di ko ci position hmm. euh, CDAO ak hmm. euh, li nga xamante moy justice juste hmm. même Abdoulaye bu nekkee ñetti parti la. ñetti parti rek tay ji ngeen di parrainage. ñu laaj la dina am problème mais day moyen grave là cest à na dina wàññi coono buñu bu 5000 parrainage. yow nga am 10000 000 parrainage. ce qui veut dire que tu as le double de ce qu'on demande. ya ngi xam ñeneen ñaari parti indirectement. tout à fait léegi nag loolu noonu yëpp mu nekk ay lo ne c'est l'injustice dans l'injustice bo xamante ne kenn moo xam ni ñu koy réglé

le Sénégal dispose six mois pour mën ko supprimer. xam nga tey nous ñun un pays de droit. ñu signé ay traité signé une convention ba nous ñun suñu état parfois buñ ko daanee au niveau international du ko respecter. Mhm. parrainage nous niñ ko bonul le mhm. parrainage mais par bi ñu ko war a repenser. ko corriger ko. parce que mais les acteurs politiques am ci aussi pas de responsabilité parce que ce débat là duñ koy poser. effectivement dañuy top topp euh, mouvement euh, majorité bi. ñoom au moment opportun nag. Mhm. ñu commencé bëgg poser le débat alors que fait que ils ont raté le départ. Voilà. la parfois ah. càmbar qui ñu ko war a càmbar. wala euh, waxtaan wi ñu ci war a waxtaan. Mhm. ko ci les choses politiques. Mhm. ba duñ topp parrainage bi parfois day ñëw rek le ci kaw acteurs politiques moi li wara def buñu génné génnee fii nii repenser waat le parrainage. xoolaat ko. xoolaat repenser wala dañu wara a suivre. corriger wala dañu wara top lu CEDEAO. CEDEAO wax mën nañu ko man je pense que c'est la première chose parce que comme dañu dañ ci taxawal. waaw ci yenn détails parce que mm. CEDEAO tay bu demee ba jël yenn décision justice yo xamante ne. Mm. jël na ko lii yoon mooy dañu ko wara appliquer. effectivement mooy ni supprimer. l' actuel film état bi nek ni xam état bi nek ni donc plus que Sénégal est membre et day cotiser. effectivement acteurs yépp d'accord nañ né ne parrainage bi dafa am des anomalies mm-hmm. Mhm. Mais nous avons dit que nous mais les acteurs politiques, la société civile, nous avons dit que le parrainage, le logiciel, parce que le logiciel est technique, parce que nous avons le niveau de technologie baissé, permettre que nous avons le logiciel, même heure de technique, nous avons gagné marge 3, 2 à 3 heures, parce que fini, une heure, il attend a temps réservé par le collecteur. on propose à ce que

D'ailleurs, c'est i carte problème uh-huh. France. Uh-huh. Euh, parti politique fini vous mes élections? élection 5 uh-huh. parti boobu koy effectivement parce que bu fekkee nga euh, pourcentage bobu état moy gàddu say financement parti politique mom moo lay moy bo boobaa li nga wax ni ay financé pour jënd li ñu du am cest à que tu ji lool bañ ko moo tax si les 15 points premier point bi njëkk a def dañ modernisation des partis politiques moy mm-hmm. le référendum mm-hmm. man j'ai pas vu li nga xam mom moom lañ ci référendum bi lo xamanteni mm-hmm. euh, tay ji jii respecté nañ parce que boy xol euh, même ci les chefs de de l'opposition Action son statut dañ ko consacré ci point neuf bu ci 9e point bi ci li nga xam mom modi 15 dugalaatoon pour modification modifications. pour man bu done parti politique yi ni ñu bëree ni nañ parti yu soudé yu correct di am formation bu baax euh, di rendre des des rapports financiers au ministère de l'intérieur pour man boba coow ni yépp wax ni pour nit ñi di jënd ni ci ay financement d'homme am effectivement loolu c'est important parce que parti loolu ngay wax non parti politique du def Sénégal

parce que ku mel ne président Serigne Mboup par exemple ku mel ne Bougane ñooñu noonu euh, politique defaru leen wax dëgg yàlla. am nekkoon si liggéey daal waaw nekkoon nañ ci liggéey te politique mayu leen dañu am. Mhm. loolu yaakaar naa salaire député mhm. ak carburant bañ leen jox oto boobu ñoo yaakaar naa terewul leen nelaw mhm. te loolu yaakaar naa ñu ne ci liste bi ñu bëri bëri yaakaar naa loolu te aussi terewul leen nelaw ñu mel noonu même mel na Fadar Barro Fadar Barro. mais yaakaar rek nga ci am xaalis moom kenn xamul ay mbiram ma ne yaakaar rek nga ci am xaalis moom kenn xamul ay mbiram. waaw mais yaakaar nañ parce que dañ ko wane wane nañ ko parce que wax dëgg yàlla def def nañ. non non dañu dul tabb dañu man je pense que vous avez déjà complètement faussé le débat parce que dañu dul tabb ci nit. ndax doon na fay wi un million ak un milliard. problème bi mooy. tey ki nga xamante ne dafa bëgg defar goxam. nga xool apport bu mu am par rapport à sa communauté. ñu dem ci élection locale mu am benn représentativité. loolu rek tey bu ñu dugalee parrainage bu ñu ko nangoo dafay pro

xamante ni la place des jeunes aussi. merci déjà dans ça on en dehors de même place des jeunes les Fadel Barre et autres. Mhm. même si ce sont des très de très bons profils pour profil pour li nga xamante ne moom mooy. Euh, euh, assemblée nationale. Mhm. tay jii man parrainage man mom lay ñëk tek loxo. Mhm. parce que li nga xamantene dañu né dañoo tënku ci benn kuréel kuréel boobu ñu tënku muy CEDEAO bu waxee ni lii antuwu ci lii baaxul dañu war a xoolaat suñu position mhm. mais dañoo gis ni bu waxee ni yii baaxu ci mu mel ni lu mel mhm. ñuy ñortu ne bu arrangé nguur gi mhm. ñu ne baax na e e fu nek ñu tok ci plateau yuuxu fa mm-hmm. CEDEAO moko wax CEDEAO moo leen bañ topp ko mm-hmm. mais ma ñott ni bu leen arrangé wul mm-hmm. duñu faale li CEDEAO wax dañuy doxal lu ñuy doxalee seen bopp légui fan lañ leen di atté loolay problème bi tay jii même bu nekkee da nga ne sen expert yi gis nañ ay différence yu ndaw wax yooyu noonu est-ce que tay ak li nga xamantene moy taxaway bobu boobu ñu gis dinañ am résultat par rapport ak li nga xamantene ne moom dem euh, di xeex ak li nga xam moom ngeen di posé li wax sax très pertinent parce que parti bu melne ne PDS par exemple nek euh, am groupe parlementaire parti bobu ñu koy laaj parrainage mu bokku ci coalition ñu koy laaj parrainage c'est insensé. Mhm. Euh président Serigne Boub dem au niveau de Kaolack ñu Kaolack ñu am fa 35000 voix ba paré ñu ñëw defaat coalition am des personnes représentatives ñu lay laaj ñu lay ñu lay indi ñu lay laaj parrainage xam nga loolu tamit c'est insensé xam nga tay ji parti bo xamné dem nga wala coalition bu dem élection am benn représentativité. yaakaar naa ñooñu waratuñu leen laaj parrainage. Mhm. peut-être ñi nga xam ne dañuy doog a jug des candidatures indépendants. ñooñu pour ne pas ñu créer candidature farfolu yu bëri. ñenn ñi mën nañu laaj parrainage mais ñëpp xam nañ ne benn Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi la coalition ànd nawle muy bugg Bougane war wax dëgg yàlla parrainage waru waru leen a tëb parce que dem nañ ci élection locale am représentative ils ont fait leur preuve. yaakaar naa ñooñu a ay parrainage. parce que daal man daal pour man suñu système war nañ ko gën a defaraat. gën koo refeeraat ba nga xam ne bu ñu génnee ci yi Parce que Sénégal, à chaque fois, élection Est-ce que aussi parrainer quelqu'un signifie que vous allez voter pour lui aussi Non, pas du tout, du tout, du tout. <laughs> Mais il y a sax ñëw na wax na léegi dit ban type de député lañu war a am ban type dama wax léegi sax ne affaire kii ak yooyu loolu waxina rek mais li gëna am solo moy bo demee assemblée nationale lo fay def ak programme ban nga am. Mhm. ak lan parce que li fi am ni wax dëgg yalla changement dafa wara am def changement dafa wara am li fi am ni mom bu féké mom rek la ñu war a indiwaat. kon il ne sert à rien ñu dem ay élection élection législative parce que boo gisee ku mel na ñu mel ne Serigne Boub di dem au niveau de l'Assemblée nationale pour ñu mën a def des réformes indi rupture bu ko defee ñu indi des propos imposer la cohabitation a Macky Sall newuñ na cohabitation boo xam da ngay ñëw rek pour bloquer parce que mais de l'opposition c'est pour bloquer cohabitation parce qu'une cohabitation ça n'arrange pas le parti au pouvoir parce que tous les projets sont bloqués en France deux fois pourtant cohabitation non mais non non non ça ça Abdou non non non partager parce que je dirais bien au contraire non non non non non non un partie qui veut vraiment travailler. que mu nekk au pouvoir. Mhm. a besoin de cette cohabitation pour mieux travailler. am nga lu parce que tey am na yu bëri yoo xamante ne tab yi nga xamante ne moom la ñuy wax ñi nga xamante ne ñoo gérer administration demande ay oh, euh, demande d'offre de d'emploi tey boo postuler postuler ci ñu ne ñii ñu retenir ci cinq yooyu kooku nguur bi amna ci droit tànn ci kenn pour nous diriger. nekatul ay affaire de parti nekkatul Abdoulaye. il est pas léena li mu wax ni c'est bien. manam principe lay wax. non c'est que li principe bi la. non mais parce que noonu lañ ko wara xamé comme ça cohabitation yu wax ko pour mais mais les les leaders politiques yu gis ni ak sen tiraillement yi ñu wane ce qui s'annonce là. foofu laa waxee mais li nga wax ni non non attends léena mi li wax ni c'est le c'est le cours magistral c'est bien beau li wax ni c'est ça que ça doit être et puis amna pays yu koy doxal mais dama ne mais bo défé la

Jacob une école de formation spécialisée dans les métiers de l'audiovisuel, vous revient cette fois-ci avec des formations en cours du soir sous forme de CPS, certificat professionnel de spécialisation en prise de vue, caméra, infographie, son, montage vidéo, jeu d'acteur ou encore animation radio. Avec nos équipements à la pointe de la dernière technologie, vous recevrez une formation de qualité dispensée dans de très bonnes conditions par des experts de renommée du secteur audiovisuel. La durée maximale de ces formations est de 6 mois avec Africom AV, plongez dans l'univers des métiers de la télévision, de la radio et du cinéma. Les inscriptions sont ouvertes. Pour plus d'informations, contactez-nous au 78 604 16 16 839 68 68 au 33 831 04 19. Rendez-vous à notre adresse hm 1 Solida, derrière Excaf Télécom Dakar. formation ci li di pédicure ak manucure manam topoto say tank wala say loxo. topoto it say we ba mu rafet ba fu way tollu seen ko am ci La aussi, leen école internationale d'esthétique du Sénégal d'une fi théorie white pratique qui les lu jëm ci et manucure. école internationale d'esthétique du Sénégal. plateau plateau de toi-même tu sais bu ñu fàttee ki nga xamante moy notre internet euh, international Mbaye sen suñ ko mënee am par Zoom ah tey nag ñu ngi euh, waxtaan ak ki nga xamante mom moy Fatima Bokoum mu dalal ki di Adja Diouma euh, Diouf Ndiaye sage-femme d'état principale de classe exceptionnelle exceptionnelle hein ancienne coordonnatrice nationale santé de la reproduction mm-hmm. tay ñu dara a lepp li nga xamante moy rôle et limite de la sage-femme lors de l'accouchement mme mm-hmm. la ñuy madame Diouma à chaque fois su ko fi dalalee damay am contacté ndax elle a plus de 30 euh, d'expérience donc les lu ñuy waxtaanee te mu jëm ci mbirum euh, sage-femme de naa elle est bien placée pour en parler tey bu ñu sage-femme mën nañu wax ne ne véritable chef-d'œuvre euh, ci ci ci accouchement tey futur maman bi bu nee cëpp hôpital kan moo ko jël en charge aide-soignant bi la wala keneen médecin bi balaa muy egsi si sage-femme bi kan moo ko war a njëkk jël en charge je suis Fatouma may ngi kontaan ci loolu euh, di sawar yi tam waxtan ci sujet parce que damay wax sujet bobu war ñu ci mëna mhm. parce que jigen ñangi fi ëmb yaangi fi te comme niñ koy waxé tant qu'il y a vie, il espoir et mhm. tant que vraiment les sages sont là euh, on ne veut pas bouger du tout du tout du tout. Mhm. que vraiment qu'une femme meurt en donnant la vie. c'est notre éternel combat. vraiment nous, xex nañ ci ba sonn il y a nag àddina qui doxe noonu mhm. mais damay wax chapeau bas à toutes les sages-femmes parce que sage-femme la comme nous bu def 36 ans de service jël dem à la retraite depuis 2018 mhm. donc nous naa xale yi li ñuy daj ak coono gi ñuy mhm. donc chapeau bas à toutes les sages-femmes surtout celles qui sont dans les profondeurs du Sénégal dans des conditions misérables des ah, de conditions qui sont très ñooy mais elles sont très braves gëm seen métier bëgg métier parce ñu nekk ci yenn conditions yi accepté di ko dawal waaw dogal na ndaw si bu dugg si ci kër gi war a ñëw di faju si mm-hmm. ah, xam nga dañuy wax grossesse dafa am pré am péri mm-hmm. am post mm-hmm. pré bi mooy nit ki su ëmbee tey boo toogee ba gis ne yow war na nga lor nga sol sa dàll jubal ci structure santé nga ni man dina ma bëgg dem ñu seet na ñu ciy def nag campagne de sensibilisation bu mag parce que dañuy bëgg avant trois mois yi di mat yow nga ñëw waaw mu am li ñuy wax les trois retards retardu jóg jël décision ne man damay faju ci ak retardu jóg ñëw faju ci bëgg si biir ak retardu boo ñëwee ba ci biir ñu jël na en charge hôpital circuit bi ni mu demee boo dugg si gardien ba ngay fekk ci buntu ba soo ñëwee ba ci gardien bi avec euh, système bi ni muy demee di nga def nga dagg ticket mm-hmm. chez le billetteur boo daggee chez le d'état bi recevoir directement. directement d'accord léegi bi kon wax ne ne rôle di di commencer exactement lan rôle accouchement bi. man Fatouma wax rôle commencé rôle commence depuis la communauté. Mhm. avant ngay ëmb. Mhm. parce que bi les suivre. Mhm. les vaccinations tout. Euh, nutrition sa femme dañ et tout nga ba doon adolescente soo doonee adolescente sachant de bi war di wax par rapport ak sa wér yaram mm. les transformations morphologiques physiologiques du corps par rapport ak jigéen bu demee ba war a gis mbaax éducation bi nga ko war a apporter mu dem ba am jëkkër bu amee jëkkër dem ba ëmb bu boobaa lay ñëw ci structure de santé yi mm-hmm. bu boobaa dafa mm-hmm. yaatu dafa mm-hmm. yaatu dafa yaatu d'accord dafa yaatu léegi bu dee euh, par exemple ay complications dafa am lors de l'accouchement est-ce que foofu la ay limite am di commencer wala sage-femme amul limite keroog bi nga xamante ne mu ngi euh, ah, ah, euh, ah, wallu jigéen bi aussi dafa kay Fatouma tant yaa ngi ñëw grossesse bi mi ngi dem normal Hmm? sage-femme bi ci loxom ngay des ci ay compétences am la bok pour mu defal la quatre consultations prénatales bo amé 3 mois bo amé 6 mois bo amé 7 mois et demi ak boo amee neuf mois hmm. muy les consultations prénatales so arrêté consultation prénatale 15 jours après dina la jox rendez-vous defal la rendez-vous CPN de suivi hmm. waaw so démé nak ba nga xamné ne matu nga bu boba nga ñëw bo ñëwee structure yi niñ ko organiser day am sage-femme yoo xam ne réception manam ñom ñay accueillir ñi nga xamné dañuy ñëw prosi mhm. légui sage-femme bop nek réception bu la jëlé mom dina la sét bu féké matu nga ah mu jallalé la ci ka nek salle de travail nga dem tok xaar bu féké matu wo mom mu sét la taxi norme may na la aussi nga bind ordonnance mhm. kooku ci prérogative bu sage-femme la bop ah légui boo bindalé ordonnance bu dee matuwul mu dem nga jox rendez-vous mais fofu dañuy mhm. médecin rek ñoom ñoo wara bind ordonnance non la sage la sage-femme hmm. dafa war a bind ordonnance c'est l'infirmier qui n'a pas ah, obligation de prescrire une hmm. ordonnance ah, l'assistant infirmier dafa doon benn corps boo xam dañ ko créé woon hmm. pour mu assister la sage-femme pour mu seconder l'infirmier waaw hmm. ah, mais la sage moom ci ay prérogative mën na bind ordonnance peut-être nag xëy na am na garab yu ñu ko limité waaw loolu doxat fii mais moom ci prérogative mën na bind ordonnance mën na bind acte de décès tamit wala non acte de décès ça dépend man mii di wax ak yow man musna constater c'est quand tu es chef de poste. la ça chambre la peut être chef de poste comme mm-hmm. l'infirmier peut être chef de poste. Mm-hmm. infirmier chef de poste ou sage-femme chef de poste. Il tamit texte Taxi bind. texte c'est dans les textes. aide de tamit aide sage-femme bi. as assistant infirmier. Mm-hmm. yi nga a une ligue presque ñoo ci poste yi. peut-être parce que infirmier d'état salle sage d'état formation bi génn bi. presque assistants yi ñooy gën génn que infirmier que sage-femme presque ñoom ñoo bëree ci poste yi mm-hmm. mais ils sont formé aussi dès l'instant que tu es diplômé d'État que état jël la que tu es fonctionnaire de l'État ñu affecté la dans un poste de santé nga jouer rôle chef de poste defe naa boo fekkee sa aire géographique mm-hmm. am na dese war nga ko mën a constater mais aide moom kenn waxi la ko xam mm-hmm. aide warul piqûre warul accoucher warul def perfusion warul def aide aide la tudd. dafa war a aider la la hein. tendance est maintenant kii. est-ce que nous léegi ñoo ñoo ëpp def ko loolu parce que loolu c'est les défaillances du système xam nga mm. infirmier. Mm. warul nekk poste santé bi médecin bi am nga médecin yu doy nga yóbbu leen ci poste santé. Mm. est-ce que am nga médecin yu doy pour ñu dem ci poste santé. <laughs> donc au Sénégal. C'est pas respecter leen. damay ñëw sax ci li nga xamantene le mal bu ñuy euh, noter ci li nga xam moy structure sanitaire yi tey am ñu naan est ce que le personnel est bien qualifié ñu ngi naan est ce que formation bi. Mm. nu mu doon demee non lay demee ba tay yow ban constat nga def. non formation mom ñu mu doon demee demee wu ko. Mm. waaw loolu c' est une longue. expliqué naa ko mm. loolu man vraiment ñun sa chambre nous on était à l' école militaire. nous on était à l' école militaire. waaw dañ lay former. internat la mm-hmm. da nga am heure jàngi am heure stage am heure étude forcée am heure nelaw dañ doon jouer sa comportement we gis nga ba léegi doo takk ay kii mèche greffage yooyu yëpp bokkul woon. jigéen ñi xam léegi dañuy posé ay ongles yëpp. dañuy greffage da ngay fekk dañuy greffage. waaw xam nga yooyu yëpp yooyu yore seen mhm. xam nga yooyu bokkul woon dans les formations. dañ la doon touché blouse jox la daalu stage jox la daalu cours soo ñëwee ci hôpital di nga xamee sage-femme bi nekk première année deuxième année troisième année. première année day am trait rouge deuxième année am ñaar troisième année am ñett da ngay sol blouse teg ci tablier sol coiffe sol dans yu rasé pour ne pas déranger maladie et tout première année dafa am paquet de travail Donc def mm-hmm. la gum malade à partir de deuxième année ngay commencer di accoucher mm-hmm. première année tu te familiarises ainsi de suite donc formation yo yo bëreetul tout nga avec les écoles privées mhm. multitude de pléthore pour m'amener trop parce que la formation il y a plus de théorie que de pratique di nga dis xale bu dugg mhm. ba génn na la wax durant l'année ñaata yoon la def stage parce que mooy wutal boppam terrain stage mhm. mooy wutal boppam terrain mooy fay alors qu'avant avant avant da nga doon am monitrice ah, ñun école bi mo lay tanal terrain stade bi ngay dem dispersion la que c'était une organisation en collaboration mm-hmm. avec les centres les PMI consorts mm-hmm. day am suivi moom monitrice bi elle est tenue mu ñëw encadrer leen dans le terrain de stage yoy mm-hmm. yop c'est un peu compliqué fi mu ne nii moom kon désordre bu ñuy dégg rew bek ay ñak kersa yeeg yooyu yëpp peut-être manque de formation du war yoy mom Fatima li may wax je l'ai toujours ce serait jamais de le dire. juddu yaru de dafa fort. sachant blouse la ah. métier la. Mm-hmm. blouse la métier la. nit ki fi mu juddoo fa am éducation de base am du sachant moo koy soppi mais damay wax ni boo demee ba choisir sa genre force nag da ngay soppeeku. parce que métier bee ko laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. man je pense que seen seen problème à mon avis hein mm-hmm. mais je pense que le problème bi nga xamante ne am nañ ko nekkul problème niveau sa femme bi parce que comme ni ñuy gisee ñi nga xamante ne peut-être ci seen caractère loolu lañ mën comme ñuy gisee des sages-femmes extraordinaires exceptionnelles. nga xamante ne da ngay tisee ñoom ay relation ba après ça va durer même éternellement. diggante doom am ci leneen wala parce que la façon bi ñuy jëlee bi ñuy amee benn prise en charge. man je pense que le problème dañ ko côté population population bi femme joxuñu ko gëdd ma ne man dama yaakaar ñetti dañ ko war a defar ba pare parce que population bi dañu war a xam ne sage femme bi muy dem di kii bi en quelque sorte même bu nekkul médecin bi nga xamante moom moo war a kii wala nekkul ki nga xamante moom seen comportement muy dem bu buux sage femme bi ah, révolté wu révolté wu non même góor ñi je sais ah. euh, la

kooku tamit bu ñu répondre ñu ne yóbbu ni lim ñu def moom moo tax te fekk na ni am na nooy ñëwee indi cër respect parce que rare ngay gis nit ku ñëw indi cër respect ñu ñàkkal la kersa toroxal la je suis vraiment désolé entre ah, ñu bëri a d'accord war a njëkk liggéey mooy population bi xam cëru sage femme fan la toll lan la commencé ak ban comportement la war a am ak moom mhm. comme ni ñu ne population bi dafa war a am cër ak comportement bu a a étudier mm-hmm. euh, mm-hmm. communication entre nit ki ñëw ci kan mooy ñëw ci sage bi mm-hmm. nous les sénégalais ñun ban comportement la war a am par rapport à sage bi naka la war a ñëwee ci ñoom ak naka la war a ànd ak ñoom tey ji par rapport loolu bu ñu ko gérer ba pare après ñoom bu ñu li nga xamante ne mooy problème formation problème mu ànd problème yooyu loolu c'est à leur niveau interne léegi te problème yi gawuma nii mos nga gis ñaari sage-femme ñu ne ñoo xeex ba rayante mm. wala ak yooyu moom lépp le problème c'est à régler lu ñuy kaas ñoom dañ koy kaas man lu may wax mooy problème bi nga xam te ne moom lañu am par rapport ak la population mm-hmm. xam nga leen li may wax c'est la relation mm-hmm. relation mm-hmm. cliente patiente merci loolu la relation cliente patient. pour confirmer li muy wax noonu c'est tellement important am solo ba nga xam ne dafa accouché damay joxe exemple dafa accouché yoroon seen ambulance di dem. ñuy ñu ñu yem ci cas bi ñu jël ko prendre ko en charge ba pare doog wëyal seen liggéey mm. pour wax na ñoom yéen da ngeen def liggéey bu mucc ayib man mi waxee am na sœur boo xam ne bi ñu koy affecté aussi dañoo mobiliser ne du dem parce que dafa amoon relation cordiale li muy expliqué nii ak ak ak les les patients. man mii di wax ak yow man maa ngi sept turandoo gën gi neew am naa fay turandoo Gosaas am naa fay turandoo mm-hmm. Mbaaw am naa fay turandoo presque partout où je passe dama fay am turandoo. Mm-hmm. bëri na mais de rela li leen di wax c'est très important. Mm-hmm. parce que même léeg-léeg yenn erreur yi ci biir maternité yi sax ñoom accompagnant yi léeg-léeg ñu indil ñu ko da ngay am sa malade muy mat. yow xamoo fan la toll nga dem wuti abadu sawda wala yoo ñuy bind di ko xool nga ñëw jox ko ko fekk moom nekkagul dilatation complète mm-hmm. nga ñëw jox ko ko après tu vas créer une dystocie anormale li ngay créer mu indi problème léegi nag leena li muy wax population bi

infirmier la fay nek léeg sax mhm. doo fa dis infirmier mhm. donc c'est karange mom mon mot yor mhm. nit ki bo démé bëgg mu yor sa karange wala nga koy seeti ba pare cër biñ ko wara jox joxoko day indi day fossé depuis le départ Ah, parce que problème bi ci nek moy sage-femme bi dama la wax ni dafa am comportement bu mu wara am dans la communauté déjà yow sage chambre ci gox infirmier ci gox en sorte agent santé ci gox man en 1982 ñun booba on était à Matam amadou Unaare infirmier chef de poste dem naa foofu moo doon trésorier wu mhm. keesu coopérative wu dëkk ba mhm. agent santé yàlla moo la may lool boo nekkee ci gox normalement yow yaay nga papa nga mag nga rakk nga bàjjan nga nijaay nga tànt nga lépp nga relation boobu moo war a am sànq dafa laal lu te relation boobu boo amee ba tegu non dama relation boobu boo amee ba tegu xam nga relation boobu bu amee ba tegu. Mm-hmm. population bi duñ ñëw di la seet si. mais mais sëy yu tas sax sage-femme da koy defar. sëy yu tas sage-femme da koy defar. mais nga yéen mooy mm-hmm. seen seen seen comme ñi nga xam te ñoom yéen yéen yéen jaar ngeen fi ngeen jaar macha allah euh, ni nga ko waxee nii mais ak génération bi mu fi gis nii. génération boo xam ne sage-femme bi ci bëri nag bu ñu waxantee dëgg rek nag ñu bañ ci raay raayal euh, te WhatsApp ak téléphone ak yeneen yi ci yeneen lañ nekk parce que tamit nag malade bi ñëw dañuy jàpp ni matière la indaale coono la indaale. xanaa yaakaar naa ne kooku. yow yow mm-hmm. yow yow yaa war a am tempérament boo mën a acquérir parce que dañ laa tàggat tàggat la ba pare ne la dañ lay ah. fay pour barab bi pour lii doonte fay yaak yooyu yeneen condition la ñuy xoolaat. am na vidéo foofu foofu am naa fa xalaat. comme man je suis du milieu. Mm-hmm. ah bon waaw je suis du milieu parce que. man je suis un ministère la santé. Ah euh, je suis le responsable cellule suivie évaluation du centre Talibou Dabo. ministère la santé. parce que l'enseignement, à c'est très important parce que formation de amoon bu l'église, euh, ça fait deux c'est diamétralement opposé comme li le système sanitaire c'est un système pyramidal mm-hmm. tey jii da ngay xool poste de santé la jógee jëm ba ci EPS de niveau 3 case de santé case de santé ok effectivement case de santé ba EPS niveau 3. Mm-hmm. tey jii comme li mu wax nii boo demee. bi yokk na formation bi waaw bi yokk na formation bi wàññi mais d' ailleurs sax d' ailleurs sax boo xoolee e ENDSS amul amul examen amul amul concours. alors que les écoles privées ñu ngi former nit ñi di jàng di fay seen xaalis budget bi D'ailleurs, heureusement le gouvernement sax temps un DSS doctorale. Mm-hmm. mais rattaché ko université. rattaché ko université. Mm-hmm. pourtant nous, uh-huh. Dagomala, mm-hmm. en 1982. ñun suñu diplôme. on passait nos examens à la faculté de médecine. Nous un diplôme beaucoup de un encadré on peut même servir en territoire français. parce que Bob, ay professeurs nous, avons ñu daan jungle. Nous amuñu pas élève. ay professeurs rek rek rek mais actuellement aussi nous, ñuy jël ñuy jàngal Mm-hmm. avec les multitudes d'écoles. Mm-hmm. Une école privée qui te fait zéro admis, c'est comme un parti politique qui ne va jamais en élection. il faut les enlever. Il faut les fermer, mm-hmm. il faut les bannir. Il faut les bannir. dans les villages les plus reculés. de poste. formation kooku bonjour la dégâts parce que foofu noonu tu gères toute une population pratiquement foofu yaay def yaay def population bi dañuy am culture li ko leen a waxee ñuy parce que sénégalais balaa xalaat avocat daa am problème balaa xalaat médecin daa feebar c'est-à-dire que il faut ñu am culture di jéem a xam si mbirum docteur mbirum faju ah mbirum lépp loo xam ne moom moo soxal ci yoon fi ne ñu ci bëri même carte d'identité bi sax bala nga koo war a retraité ji xaalis c'est-à-dire que on n'a pas cette culture bien vrai que bien vrai que sax état mi état sax parfois à mhm. travers le ministre de la santé mi ngi def sax des efforts. Mhm. mais efforts yi parfois. beaucoup d'efforts. efforts mi ngi beaucoup d'efforts, vraiment. beaucoup d'efforts efforts même boo xoolee sax temps yi def nañ recrutement yu massif. Mhm. ñu ngi construire des hôpitaux. mais dañ ko war a renforcer. au niveau au niveau des villages les plus non si xam la ñu war def ak accentuer mooy la formation ak le recrutement. Mhm. parce que tamit parfois les les agents de santé da nga comprendre. négligence da ci am dañu du somme du corps mais négligence de am. merci beaucoup Momar Talla mm. international bu nekkee yaa ngi en ligne ñu ngi lay nuyu di la ziar. Léna Salif maa ngi leen di nuyu di leen fay bu baax a baax di nuyu aussi ñi nga xamante ne bii ñoom nga toogal sa plateau bi ma Fatima Aboulé Ndiaye ak nos deux invités surtout de féliciter aussi suñu soxna soos nga xamante ne bii suñu yaay ji ci liggéey bu mucc ay bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy def ak l'ensemble des sages-femmes moo xam des infirmières qui sont au Sénégal. kon dégg nga waxtaan bi sànni ci kàddu balaa ñuy dem ak yow ci actualité sportive. xam nga li nga xamante ne mën ci yokk rek mooy c'est vrai que l'État est en train de faire énormément Euh, de bonnes choses concernant les hôpitaux waaye nag xam nga daanaka dañuy def li nga xamante mooy sanga a sanga xale bu juddoogut c'est-à-dire dañuy jéem a njëkk a def loo xamante ne bi am na lenn loo xamante ne moom moo ko de faire des efforts waaye effort yi am na lenn loo la war a àndal muy les mesures d'accompagnement et dafa nekk lu des ñu ngi construire ay hôpitaux waaye ci biir hôpitaux yi la war a nekk ci lépp moo xam euh, ci service amu fa et jàpp naa ne war nañ cee na taxaw nag waaye nag di leen féliciter par rapport ak li nga xamante ne ñu ngi koy def am nañ yéene bi waaye xam nga réew mii ñu nekk muy euh, muy Sénégal daanaka c'est plutôt ay ay ay débat de seen bopp ci mbir mi la alors que ni dans le fond dara defaguñ ko comme li may tàmm di wax rek l'État a complètement échoué sa politique de de de santé.

bon xam c'est un tweet boo xamante ne bii nii euh, Ismaël Sall, nee nañ moom la après à la limite il l'a enlevé mm. contrairement à un certain Patrick Vieira bi nga xam te ne dégg nañ ko waxee xam nga moi je vais aller un peu plus loin Léna Salif hier j'ai failli appeler sur euh, émission bi nga xam te mooy After Foot nekk fi nga xam te mooy RMC parce que maa ngi ko doon déglu démb mais je vois que ni ñoom ils ont leur propre euh, auditeur yoo xamante ne bien ñoom la le jël ñoom la ñuy au téléphone mais su ma ko jëloon démb dama ragal ni les médias français dinañ am woy bu rëy parce que naroon naa cee wax loo xamante ne euh, kenn du ko xam parce que nag euh, mënuma jàpp ni Idrissa Gana Gueye li tax tey mayo boobu ñi nga xam te ñu ngi koy nekk di ko wax li tax solo ko mooy dafa am dañ ko dañ ko floqué aux couleurs LGBT couleur LGBT yi moom mooy les couleurs rose bleu jaune jaunâtre les couleurs LGBT rek dans sa globalité li nga xamante ne bii bañ na ko gisuma tollé bi nga xamante ne bi nii yëkkati na ko ba tey sax la fédération française de football am na benn communiqué boo xamante ni génne nañ ko Idrissa nag j'ai bien aimé li nga xam te waxu ci yéeyu ci ci et aussi j'ai bien aimé pour la première fois la position du président de la république par rapport ak soutien bi nga xamante ne def na ko li nga xamante ñu ko doon xeex Sénégal nag wàllum LGBT góor jigéen ñi gëm naa ne li nga xamante ne le président Macky Sall def démb concernant le tweet bu mu yónnee euh, Idrissa Gana pour mon combat boo wartuñ ko yëkkat Sénégal parce que mbir mi leer na te farankulaay na leneen li nga xamante bi aussi mun nañ koo wax mooy euh, ils sont en train d'avoir ils sax wala elle sax laa d'avoir une force pour xam te ni kenn parce que au delà de la fédération sénégalaise de football hier aussi j'ai entendu Riolo qui est nga xam foot il est vraiment temps que le Paris Saint-Germain se débarrasse de Idrissa Gana pourquoi parce qu'il a porté un maillot boo xam maillot boo xamante ni dafa couleur LGBT parce que mon diine maillot, et jàpp ni permettre pour que nit ku ne nag mais bëgg naa def lii war nañ la permettre aussi yow nga libre bañ a def leneen bi parce que ñoom dañoo ne Idrissa ñoom dañuy sol maillot mais comme neex bañ a sol maillot comme neex a sol maillot et hier même j'ai entendu aussi euh, yi di ko sol parce que dëppoowul ak li nga xam te ne moom mooy gis nañu problème actuellement mu ngi campé fii y a boo xamante ne bi ci kanam sax euh, on doit parler qui proche du Paris Saint-Germain li nga xamante ne bi xam ko ci mooy ils sont en train de faire une pression sur le club de la capitale est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas heureusement ba Idrissa Gana Gueye ak à quel sur de ce problème wane na fulla wane na fayda wane na aussi gëm-gëm bi nga xamante ne la am te gëm nañu du sol li nga xamante ne moom les couleurs LGBT LGBT ci yaram merci beaucoup international la tâche euh, ni avance, le cas Kylian Mbappé mais lu ni mel ah, Abdoulaye mi ngi kon ci ki nga d'autant plus que mu wat li nga position par rapport à la situation avant euh, match bi di xew nga am gis-gis ci wax ci démocratie ak liberté ci dëkk une différence ah mais démocratie ak liberté kañ suñu nekkante dañ koy wax nee nañ un pays démocrate euh, am nañ am nañ aussi une liberté d'expression mais li Idrissa Gana a fait comprendre a fait savoir aux gens que cette liberté d'expression bi nga xamante ne bi ñu koy wax moom ah ah soo des seetkat permettre ñu ko ko waruñ ko ko joxuñ ko parce que yéen da ngeen di sol man bëgguma sol loolu tey xanaa boo ko waxta am pare et pourtant am na benn cas boo xamante ni waxuñ ko vous allez me dire que c'est pas la même chose mooy publicité yi nga xamante ne bi ne teg nañ ko Cristiano Ronaldo pour une bouteille de marque de boisson mais teg nañ ko mu ne du tax mu ne du nekk ca kanam fii def li nga xam te mooy conférence de presse ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga su fekkente ne dañoo bëgg a jàpp ay mbir liberté d'expression bi nga xam te ni ñu koy wax man pour man ci cas bi liberté d'expression am ci solo parce que nag Idrissa nangu ko dem nañ ba sax ba du jëm koo assimilé ak du racisme alors que ça n'a absolument rien rien rien rien rien à voir man tey su ma neexee ne man tey du ma nuyu góor jigéen tey su ma neexee ne tey du ma nuyu gwin waaw mais loolu kañ man la waaye nag warul nag su ma neexee ne tamit ne yére bii kat comme ay guy ñoo koy defar wala ay góor jigéen ñoo koy defar man mii kat mbay seen du ma ko sol parce que peut-être sama diine ak sama idéologie permettre mu ma sol loolu waaye nag loolu Idrissa Gana Gueye def na ko ça prouve encore une fois doole bi nga xamante ne bii nii mooy ces mooy ces ces réseaux là moo xam les góor jigéen wala moo xam les guy entre autres am nañ ko actuellement dans le monde et nag xamante ne bi sax suñ tey Euh, descendre ki nga xamanteni ne Idrissa Gana bu leen bett parce que le truc est devenu beneen enjeu boo xamanteni pour man dépasser na sa l'aspect sportif. beneen enjeu kañ moo tax ñuy laajte question euh, en quoi ça concerne Valérie ba nga xamanteni ne yëkkati na ci cadre exiger des sanctions ci ki nga xamanteni ne moom mooy Gana mais mais mais au-delà même de Valérie dem nañ sax ba gis naa aussi il y a un gars là qui est là très influent à Paris dem ba continuer di wax ne non Idrissa Gana doit même quitter le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain doit sanctionner.

ay sanctions. mais mais c'est pour te c'est pour te dire que ça dépasse même l'aspect sportif. politique affaire yi mënuloo comprendre. am nga seen mbir yaa seen histoire de transgenre ak affaire yooyu noonu xam nga am nga am nga am nga am nga am na yoo xamante ne sax da ko mën ta wax mais li nga xamante mom la laa gëm mooy. le ce qu'on peut retenir de ce que Idrissa Gana Gueye a fait mooy il a montré ben acte de courage wane na ne am na lu ma gëm et loolu noonu laay gëm moo xam muy neex moo xam muy metti parce que c'est un jeu professionnel Je un match aussi important dans soo dee cette dernière avant dernière journée avant li nga xam te championnat de di jeex nga wane ne li doo ko sol ak li nga xamante ni bi def nañ ko cette campagne dans tous les stades de Ligue 1 week-end dernier tubu LGBT yooyu dañ ko def dem na ba sax amoon na sax li nga xam te ne mooy ay ay bandeau takkoon seen loxo yi euh, euh, bëgg a promouvoir li nga xam te ne moom mooy LGBT comme ni ma ko ne ku ko tu es su moom kenn mu gëm li nga xam te moom la gëm mais loolu benn tool Et, je ne vois vraiment pas, je ne vois vraiment pas sa raison d'être. Euh, merci beaucoup. Quel avenir pour Kylian Mbappé C'est chaud, c'est chaud. Vous, vous, me permettrez demain, à Paris, vous me prenez en tête, je vous, je vous dirai si Kylian Mbappé il restera au Paris Saint-Germain ou bien s'il est à finir à Montréal de Pourquoi Parce que je ne veux pas donner une information, les gens vont reprendre ça et après, euh, ma enduire en pourquoi parce que c'est sûr que c'est sûr que non non man man mënuñ non non parce que non Neymar Paris Saint-Germain boobu ni ma ko sama dama ko Neymar Paris Saint-Germain ma Paris Saint-Germain après l'histoire m'a donné raison bi aussi ne Messi Paris Saint-Germain m'a donné raison commencé début de championnat TMTC ne Mbappé va terminer la saison avec le Paris Saint-Germain et l'histoire aussi m'a donné raison. Concernant Kylian Mbappé, il y a le propriétaire du Paris Saint-Germain, Tamine, qui est en train de discuter avec son papa, Wilfried Mbappé Lotin, alors que Wilfried Mbappé Lotin, qui a dit, qui est Faiza Lamari, n'est en de bons termes, Faïsa Lamari moom mooy négocier le départ de Kylian Mbappé fi nga xamante ne moy Real de Madrid lu fi Mbappé le temps papam gisee ak nga xamante bi moom moy les responsables du club donté hier Faïsa Lamari dem na Madrid dem fekki fa nga xamante ne moy mooy parce que Tamim dafa amone foofu nonou benn visite ak les autorités euh, de Madrid euh, bien sûr waxtaan nañ fa waxtaan bi nag la fa dëppale loolu ci la nekk di nekk ni mais ni ma la mën a wax mooy l'information suñ ko doon poser c'est fifty fifty entre ki nga xamante ni moom mooy Kylian Mbappé signé au Paris Saint-Germain wala rester au Paris Saint-Germain wala signé fi nga xamante ni mooy Real de Madrid parce que y a l'aspect financier moom moo ci dugg quand je dis ça mooy Tamin le propriétaire du club moom moo jëlal boppam li nga xamante ni bi moom mooy euh, les devants ne dina régler li nga xam tane moom mooy le cas Mbappé parce que il faut que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain pour une durée de deux ans mais beneen information bi nga xam tane ne si mën naa leen ko wax mooy la venue de Paul Pogba daanaka ficelé ko rek moom moo des et nag dans la foulée il signera quatre ans plus une année supplémentaire en option L'information information et Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'équipe de la Juventus de Turin et nous avons aussi Nunez l'attaquant de Benfica de Lisbonne l'Uruguay, il se pourrait signer au Paris Saint-Germain pour un montant de 75 millions d'euros loolu le moment les informations yi nga et bien, l'information de taille ça concerne du balis, comme je vous ai dit demain Inch'Allah, on rabi dinañ au niveau des transferts mais concernant Kylian Mbappé pour terminer

merci beaucoup international ci li nga xamante ne indi nga ko ci wàllum actualité sportive waaye tamit damay remercier waa li nga xamante ne ñoom lañ fi dalal tey di Adja Juma ak euh, Momar Temps la Momar bul xeeb temps bi de li nga wax yëpp bëri na de. macha allah <laughs> merci beaucoup à Fatima merci beaucoup aussi à Abdoulaye ñu tëj ci information bi nga xamante ne jot nañ ko léegi ci confidentiel Afrique muy France Sénégal Omar Ba ce jeune élu de la mairie de Compiègne qui veut marcher sur le parvis de la rue de l'université de Paris dinañ ci xuus ndiki suba incha allah ci beneen numéro 326 d'ici là passez excellente soirée. Thank you.